jërë ngeen jëf jàngoroy coronavirus gi mi ngi ci digg xal mbaadaam ci dëkk bi l'observateur bind ci xëtam mu njëkk ne virus bi mi ngi feetu ci ndakaaru li tax mu wax ko nee na moo di jàngoro ji mi ngi gën di law ci réew mi bés bu yàlla sàkk ministre de l'intérieur def na arrêté buy aaye ay daje ki dajaloo waaye loolee lépp terewul fii ci ndakaaru nit ñaa ngi wéy di organiser seeni mariage di def seeni ngénteeg seeni dëj mbooloo di fa dajaloo mu di lool moo gën a gaaw ci lawal feebar bi firndeli yéenekaay bi nañu moo di Sénégal romb na léegi juróomi junni ka coronavirus ci semaine bi ñu génn rek ñaar fukki doomi aadama ak ñaar faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi professeur Manga Noël Maclor di infectiologue ne waa l'Observateur bàyyiliku gi moo jéggi dayoo dem ba yegg foo xam ne leen rek moo mën a delloo si xelu askan yi ba ñu bàyyi xel feebar bi moo di ñu xëy benn bés juróom fukki nit faatu fi ndax corona bi bu nit ñi danañu gën a conscient vox populi nañu yëf yaa ngi bëgg a jéggi dayoo ndax ci 48 heures fukki doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci réew mi ndax coronavirus sour soi ne ko ci ñeenti fan yu ñu ñeent faatu nañu fi bi mbas ci réew mi ak jël na fi juróom-ñaar fukki bakkan maanaam Sénégal mi ngi ci 70 décès démb rek juróom benn nit la ministère de la santé wax na ñoo fi faatu wax nañu it ñaar fukki malade ak ñaar yu nekk Sowetas Le Quotidien gis ne weer wi ñu nekk mu di weeru soin moo tàng jër ne ci diiru fukki fan ak juróom ñaar fukki bakkan ak juróom-ñett tëdd nañu fi te coronavirus bi moo leen tëral journal La Tribune nañu li yëkkati ay wi yokk joote ji moo di woyefal gi ñuy def ci mesures yi ba mu jur ak bàyyili ci réew mi yéen yu ñuy aay nit ñi tey la wàllu gën a aay te ñi koy def duñu sàmmonteeg misir barrière yi embouteillage yu tar yi am ci dëkk bi tribune nañu doy na ci tàkk ku tàkk tekkil ñu xooli Cheikh Yérim Seck ma ñuy bëgg tënk ca yoon l'observateur nañu moom journaliste bi Cheikh Yérim Seck kaso ngi koy yoot déféré woon nañ ko démb waaye retour de parquet la amee tey jii ca la war a delluwaat xibaar yu wérul yu mu siiwal ak outrage à agent loolee la ko procureur bi ba tax muy sàkku ñu mandat dépôt ko vox populi nañu ay mbiram moom Cheikh Yérim Seck jege na lool instruction source wa ne ko mbir yi xeeñul neex ci parquet la am démb te procureur bi mi ngi sàkk ñu mandat dépôt ko les échos xëy ñu xamal moom Cheikh Yérim Seck la mu nekk wéetu ca ne presse bi ci réew mi takku nañu ba dëgër taxaw ci wetam ngir jàppale ko patron de presse yi ci réew mi li ñu bëgg te di ko sàkk moo di ñu bàyyi Cheikh Yérim Seck nu mu gën a gaawee mu dellu ca jàpp googee ñu ko jàppit yéenekaay bi nee nañu waa ñoo ngi koy ñaawlu fédération internationale des journalistes ak ne waree su ta jël justice bi ci réew mi di ko jëfandikoo ngir bëgg a sexal liberté de presse gi am ci Sénégal moom mii di Cheikh Yérim Seck audition yi ñu ko defal ca section de recherche ak ba ñu doon defal patron bu section recherche la tukkee ca audition ya journal Libération am na ko ba yeggee ñu ko ñu yegge ci xët bu njëkk enquête dina mi ñu xamal ne fit ca jolleeti na ca Casamance soldaar yi ñoo doon néewal doole rébelles ya dañoo riposte di Adeyane nekk ca Casamance wa DIRPA dëggal nañuy opération militaire yu ñu fay def waaye nee nañu duñu mën a sore ci wax jeeg leeral jamono ji wax ca bés bu jotee rek danañu ko def